su ko defee. Mhm. Euh, loolu it lu mat a bàyyi xel la. ki nga xam ne tuumal na soxnaam. Mhm. nekk doom ji ëmb bu juruma ko. Mhm. waaw doom ji nekkul ne man maa ko jur. soxna si war naa bañ su fekkente ne jëkkër ji moo jur. su bañulee. lislaam daf koy teg xadd sharia. amma su bañul nag. ñu teg ko xaddu sharia mhm. su boobaa doom ji moom kenn du werante ne góor gi moo jur parce que mhm. dañoo jàpp ne dafa njaalu waaye su bañee nag ne mhm. jëkkër ji moo ko jur jëkkër ji tam dëggal ne juru ko foofu la ñuy doog a demee nag ci xaadi bu xaadi bi dogalee nag ba pere doom jooju dootu mën a miraasati ki nga xam ne moo takkoon yaayam waaye moom wàllu ndeem lay miraas ak mbokki ndeem muy ah, ibnu liaan muy kaaf gi muy al muy ixtilaafu diin comme ni ñu ko jiitalee ñaar ñu bokku pas-pas. Mhm. bokkuñu gëm-gëm bokkuñu diina. Mhm. ñooñu duñu mën a donante. Mhm. muy euh, tabaarakallahu al mooy kaaf gi mooy lakka. Euh, risqa nag euh, raay gi mooy ariq. riq mooy al ubudiya waaye jamono bii ñu nekk nag suñu réew yi moom comme ni ma ko waxee ci jotaay yi passé. daanaka yi fi jaam ak jàmbur doxul fi. waaw amul fii sax. parce que charte yi nga xam ne moo war a daje gisuñu ko. Mm-hmm. kon daanaka atte boobu moom day mujj dàqu. Mm-hmm. Euh, beneen bi mooy xoof gi. muy mm-hmm. risque. koof gi mooy alqatul. ki tay rey kooku tamit deen koy aaye ak doon comme ni ñu ko jiitalee. kon juróom ñaari yi. mooy yi nga xam ne borom xam-xam yi tënk neen ko. muy ish lak risqa. muy juróom-ñaar yi nga xam ne képp kum gaar. kooku dootul mën a tee miiraas. ah Cheikh Moussa dafa mel ni affaire yi leer na trop. dafa mel ni beneen laajte bu ñu laajtoon ci ginnaaw naa dañ koy dellu rek dal ko laajtaat mu gën leer mm-hmm. mooy kam kam irs mooy doon ñaata la jërëjëf euh, miraas ci boppam dafa am ñaari posa ngi miraas am mm-hmm. doon ci boppam dafa am mm-hmm. ñaari posa ngi doon bu am ñu ko tuddee anwaa al irs muy xaaj miraas wala posa ngi miraas ñu ne al miras nawaan mhm. bi njëkk mooy irs bil fardi wal irs bi taasib mhm. euh, ñaar fukk ak juróom yi nga xam ne ñoom ñoo war a miras mhm. ci jotaay passé tudd neen ñoom ñëpp seen tur ci góor ak jigéen ñoom nag dafa am ñaari poson yu ñuy doonnee ñenn ñi dañoo doonnee ci fard ñu ne lan mooy fard ñu ne mooy dogal bi nga xam ne yàlla moo ko dogal loolu mooy is bil fard waaw yàlla moo dogal ne ñii cëru nangam leen war a miraas mhm. loolu tam ñu jàng ci ne ndeke miraas mhm. du lu doomu adama teg mhm. cër yi nga xam ne ñuy ñuy miraas moom leen war a miraas du leen yónent bi jox waaye yàlla moo ko yaxal ci alquran ne ñii neen doonoo cër yi ñii doon cër yi kon ci gàttal am na ñu war a doon ci dogal waaw dogal boo xam ne alquran moo ko yaxal ne lii hmm. leen war a doon hmm. am na ñoo xam ne ñoom dañoo doon ci asaba hmm. asaba mooy ñi nga xam ne dañ doon cër ñoom seen miraas mooy di leen jox ne temps leen war a miraas waaye lu mel ni jabar ci miraas moom foog mu doon temps waaw alquran moo ko yaxal su fekkente ne jëkkëram bàyyi na fi doom jabar ji dafa war a doon robot rubu nag hmm. jotaay dina ci ñëw bi yéegee ci leeral furudu muqaddara fi kitaabillah hmm. xañ na waxtaan dina ci ñëw hmm. beneen cër bi jabar am mooy ak sumun sumun mooy nga xaaj alal ji juróom-ñetti xaaj jox ko juróom-ñetteel ba loolu rek la am ci miraas kon moom ñaari cër yooyu la am ci miraas loolu nag mooy fard yàlla moo ne jox leen ko cër bii su fekkente ne jëkkëram na fi doom bu jëkkëram doom ngeen jox ko cër bi kon loolu du lu yónnent bi teg nekk lu borom xam-xam teg waaye yàlla ci boppam moo ko yaxal. Hmm. moo ko dogal. Hmm. ñooñu nag ci miraas ñu baree bari cër yooyu leen am. Hmm. waaw ñu bari ci miraas dañuy ñëw doon ci fard. moo tax yow mii miraas foofu nga xam. ñen ñoo war a doon fard ak ñen ñoo war a doon asaba. borom furuud yooyu ñu waxoon la muy ñaar fukki way doon ak juróom. am na ci ñoom ñoo xam ne fardu rek la ñoo doon. am na ñoo xam ne asaba rek lañoo doon. am na ñoo xam ne dañooy boole ñaar yépp tey ñu doon fard hmm. ëllëg ñu doon asaba hmm. nga ne ma wax nga mooy fard mooy doon ci cër hmm. lan mooy nag asaba ñu la asaba mooy irth bi xeyr taqdir dangay ñëw am cër boo xam ne dina wax ne temps la moom asaba mel ni doom bu góor moom ci miraas kenn du ko wax jëlal genn wàlli alal wala jëlal juróom benn xaaju alal wala jëlal ñeenti xaaju alal moom kay su fa nekkee moom kenn mooy jël alal ji yépp Mhm. bu fa nekkee ñi nga xam ne dañuy doon fardu mhm. day ñëw toog ñu jox borom fardu yi seen cër ba pere mhm. misaal ku génn àdduna bàyyi fii yaay ak benn doom bu góor moom den ko jox fard waaye wax naa doom bu góor du doon na fardu asaba lay doon ñu ne kon masala bi day wéree juróom juróom benn ngay def yaay ja nga jox ko juróom bi muy benn juróom des yëpp doom bu góor bi moo koy miraas lu tax waxuñ ne jël na nis wala jël na fardu parce que moom du doon ci cër. Mm, waaw moom asaba lay doon asaba mooy koo xam ne day miraas. Mm-hmm. te du am cër bi nga ko wax ne lii ngay miraas kon ñaari miraas yooyu moo am. Mm-hmm. ñii mm-hmm. dañooy doon ci cër. ñii dañooy doon ci lu dul cër. waaw muy anwaaru irs. Cheikh Moussa dafa mel ne tontu yi leer nañ dañ ne ne anwaaru irs nga ne mooy ñi nga xam ne da am ñoo xam ne dañuy dañuy irs nga ne la nga ne irs bil farde mooy ñi nga xam ne yàlla dina yaxal ci alquran. wala ci sunna hmm. taasib moy ñi nga xamne dañuy xaar ba ñu doon na pare hmm. ñu dess ñal diko jël hmm. gannaaw ba ñu leral lu rek ñu bëgg ñew dugg ci li nga xamne moy lan li nga xamne ne la yalla wax ci alquran moy la taqdiral ñi nga xamne ñun la ñi nga xamne ne ñoo doon ni kam nisfu wala rubu wala defin ci alquran mashkur euh miras ñi nga xamne ne ñooy doon fard ñep alquran moko yaxal euh furudu yoyu juróom-benn la. Hmm. su ko defee woy doon na yi ñaar fukk ak juróom leen. den koo tënk nag ne. Hmm. ñi nga xam ne góor leen ñëpp ci miraas. Hmm. ñoom den leen di jox asaba. asaba ba mu des ñaar. ñu ñaan waaw parce que góor ñuy miraas ñu fukk ak juróom la. fukk ak ñett ñëpp ñoom ku ñëw. din ko jox fardu waaye day xaar asaba. su ko defee ñaar ñooñu mooy. الزوج أك أخ الأم زوج وأخ الأم موي جكر من غور لا واي ميراثا ييب موي فرد واو غور موم فرد رك لاي دوني تير داي نييو ني جوخ كو فرد نيستو ولا جوخ كو فرد روبو نياري ميراث يلا أخ الأم تمن موي بوك ميغا خامن ندي نين بوك كوغو ميراثام نياار تير لام بن مو دون سدس ولا مو دون ثلث Hmm. su wiitee nekk kenn hmm. kooku sudus lay doon exemple su nit ki génnee àdduna bàyyi fi benn mbokk mu mbokkat ndey hmm. bàyyi fi yaayam yaay ji fii day doon sulusul maal su ko defee axalil umu bii nga xam ne doomu ndeem la day doon sudus parce que dafa wéet kenn la su dul ñaari góor yi ñuy miraas ñëpp ci góor bi ñëwee dañ leen di jox asaba waaye ñaar ñi ci góor moom ñoom fardu rek la ñu doon ak su jigéen ñi tamit noonu la mbooleem jigéen ñi la tuddal muy fukk. Hmm. ñoom ñëpp cër la ñuy doon. Hmm. jigéen du doon asaba. Hmm. cër lay doon. lu dul mu nekk fa góor goo xam ne moo ko yóbbu ci asaba. wala bi demee ci euh, ak wala euh, nga xam ne day loolu tamit bi ñu ci anwaawu taasib anwaawu asaba. njàngal dina ci ñëw waaye ci tënk daal. mboolem jigéen ñuy miraas. moo xam yaay la. moo xam doom bu jigéen moo xam mag la moo xam ndey la moo xam jabar la mm. ku ñëw mm. yow muy miraas xamal ne kooku cër la war a doon mm. waaw cër la war a doon ba mu des kenn muy mu'tiq moo jigéen bi nga xam ne goreel na ab jaamam waaw kooku moom du doon ci fard waaye day doon ci asaba jigéen jooju mboolem jigéen ñi nga xam ne ñooy miraas ñëpp tabaarakallaahu la ñoo doon ci fard góor ñi miraas ñëpp tamit asaba la ñoo doon ba mu des jëkkër ak doomi ndey hmm. léegi nag borom xam-xam yi dañoo wuute ci ñoom ñaar yi ban moo ëpp doole waaw doon na ci fard ak doon na ci asaba hmm. ban moo ëpp doole yow muy miiras hmm. ñaari catégorie ñëw neen ñii dañoo doon ci fard ñii doon ci asaba ñan ñu ci ëpp doole ak foo war a njëkkee kan nga war a njëkk jox cër ñu ne déedéet fard bi mu ëpp doole ndax yàlla daf ko yàqal ci su sunna ñëw dëggalal ko kon da ngay njëkkee borom fardu yi bu desee mhm. ñu nga xam na ñooy doon asaba mhm. ñu doo ko ñëw ñoom miraas am na ñu ne déedéet mhm. asaba moo gën a am doole ndax boroom fardu bi moom lu alal ji bari bari cëram bi rek lay yem donc kii doon asaba nag moom alal ji lu mu bari bari doonte moom kenn la am na sañ-sañu jël alal yëpp waaw waaye ala kullin da nga gis ne doon ci fardu mu doole ndax moom yaxal yaxal neen ko ci alquran moom lu mën a xew bu ñëwee den ko jox cëram kii nag yenn temps mën naa ñëw sax du miiras. du am dara waaw misaal. Mhm. su fekkente ne ki génne àdduna dafi bàyyi jëkkër ak mbokk mu jigéen mu mbokkan ak baay. Mhm. ak mbokk mu góor mu mbokkan baay. Mhm. xam nga góor gi kon fii day doon maasaba. Ah. day xaar lu des. wax naa leen ne jëkkër cër lay doon. wax naa leen jigéen ñëpp fardu la ñuy doon kon mbokk mu jigéen mi tamit dañ ko jox fardu. su ko defee jëkkër ji day jël kenn wala alal ji muy lu tax parce que jabaram bàyyiwu fi doom. mo xam ci jëkkëram la wala ci benen góor mbokk mu jigéen mi tamit day donu nis ndax fa in kaanat waxidatan fa laa day dugg mom tamit ci ay bi nga xam mo doon jàngale mirasul bint ak bint lim kon ñaari nis am amna lool moy tamasul su ko defé benn bi lañuy jël tu bi lañuy acc muy aslu masala bi mooy fi alal ji wara seddelé ko génn wal ñaar moy benn jox ko jëkkër su ko defé benen nis bu dess Mhm. mbokk mi mu bokk ndey ak baay moom leen koy jox jeex na wala jeexut jeex na kon mbokk mii nga xam ne mhm. moom moom baay leen bokk tam mhm. nekk góor kooku fii du miraas dara dafay toog moom day ñibbi ak loxo neen du doon dara ndax alal ji jeex na masalan waa ji fi ñaari junne dañ koy xaaj ci dëgg ji jël benn junne mbokk mi mu bokkan ndey baay tey jigéen jël benn junne bi mbokk mi mu bokkan baay tey góor moom du doon dara parce que lu tax alal ji dafa jeex loolu moo tax ñu ne kon doon na ci fardu moo gën a dëgër doon na ci asaba ndax doon na ci asaba bu alal di jeexee da ngay toog doon na ci fardu nag moom dañu lay jox sa cër hmm. waaye nga dem ci beneen yoon tamit da nga gis ne hmm. su fekkonte ne bàyyi na fi uh, yaay ak tabaarakallaahu mbokk mu góor mu mbokk ndeeg bàyyi hmm. da nga gis ne mbokk mu góor mi day mujj ëppale yaay parce que masala bi day wélee sulus waaw su ko defee yaay jël benn ci ñett ñaar yu des yëpp hmm. mbokk mu góor mii moo ko jël kon bu fi yaay bu fi waa ji bàyyoon ñetti junne hmm. bàyyi fi yaay ak mbokk mu góor mu mbokk ndeeg bàyyi hmm. alal ji koy xaaj ñetti xaaj yaay moom bam junne bi yeneen ñaari junne yu des kan moo ko moom mbokk bi moo ko moom loolu tamit am moo tax am na ñu nekkoon doon ci asabadi moo gën a dëgër parce que moom moo ëpp alal ñaareel waaye nag bii moo gën a dëgër ci njàngale parce que kii moom du daanu foog ñu jox ko cër Mm-hmm. kon ñaari poson doon yi moo am mm-hmm. irsu bil fard ak mm-hmm. irsu bi taasib borom xam-xam yi wax nañ ci waaye ala kullin irsu bil fard daal moo gën a dëgër ah Cheikh Moussa dafa mel ni di leer nañ irsu bu fard ak irsu bu fard ak irsu bi mel ni leeral nga ñooñu ñu bëgg a xam tamit ñi nga xam ne moom la yàlla yaxal ci biir alquran muy irsu bil fard nga limañu ñoo ñëpp seen taqdir yi jërëjëf euh, alquran andi na juróom benn cër juróom benn cër yooyu ñi nga xam ne dañoo doon ci cër ñëpp ak dogal. Mhm. yooyu rek la ñuy miraas ñoom du mën a génn yooyu. bi ci mhm. njëkk mooy. Mhm. lu ñuy wax fardu nisf. nisf mooy. alal ji si digg bi leen koy xaaj. bàyyee téeméeri junne. dañooy xaaj alal digg bi. am na ñoo xam ne dina war a doon xaafi alal. waaw genn wàll gi yëpp la miraas lu mooy nisf. kon alquran yaxal na ne. nisf am na ñu ko war a miraas. nis mooy génn wàlle alal mm-hmm. alal ji nu mën a toll daal mm-hmm. xaaf bi yëpp ñoom ñoo ko moom mm-hmm. waaw te waxoon naa ne ñooñu jigéen leen jigéen ñu ci gën a bari lu dul zawj ak axlil um muy benn ñaare bi bu ñuy wax a rubu rubu mooy alal ji ñeenti xaaj la ñu koy xaaj moom ñeenteel bi kon rubu tamit war wadd na ci alquran alquran yaxal na ko am na ñoo xam ne dañooy doon ñeenti xaaju alal waaw ndax rubu mooy ñeent nga jël benn Mm-hmm. ñetteel bi mooy a euh, sumun. Mm-hmm. sumun mooy alal ji dañu koy xaaj juróom-ñetti xaaj. Mm-hmm. juróom-ñetteel bi. moom la moom. si fi bàyyoon juróom-ñetti junne. benn junne kese la am loolu mooy sumun. loolu tamit yax la boo xam ne alquran moo ko yaxal muy sumun. am na bu ñuy wax sudus. sudus tamit mooy alal ji dañu koy xaaj juróom-benn xaaj. su fi bàyyoon juróom-benn junne. ñi nga xam ne ñooy doon sudus benn junne leen ci am. ndax sudus mooy juróom-benn nga jël benn. kon am na ñoo xam ne. Hmm. ci way doon yi. Hmm. ñoom sudusul maal la ñoo jël mooy juróom-benn xaajeelu alal. Hmm. Euh, yeneen ñaar yu des muy a sulus. sulus tamit mooy alal yi ñetti xaaj lañ koy xaaj. mu jël ñetteel ba mu des ñaar. am na ci way doon yi ñoo xam ne tamit loolu mooy seen cër ci miraas ak lu alal ji bari bari bari. Hmm. ñoom ñetteelu xaaju alal rek leen am ci alal ci bi ci des mooy sulusayin wala hmm. sulusaani sulusaani nag hmm. dafa bëgg a niru sulus moo tax ñu bëri dañ cee juum ndax sulusaani mooy ñett nga koy xaaj jox ko ñaar mooy ñett ñaar sulus nag mooy ñett benn waaw ñett ñaar daf fi bàyyi ñetti junni masalan kii ñu ne ko sulus ngay doon loolu ci mooy ku bàyyi woon yaay law ak mbokk mu jigéen mu mbokkat Euh, ndey kese kooku nis fi lay doon yaay moom sulus lay doon kon kii mooy jël genn wàllu alal ji yëpp hmm. yaay moom mooy jël sulusul maal sulus bi mooy alal ji dañ koy xaaj ñetti xaaj hmm. jox ko ñaar bi ñetti junne hmm. yaay ñaari junne bi la moom waaw loolu mooy sulus mooy benn bi la moom benn bi bi mu xaaj ñetti benn bi la moom loolu mooy sulus amaa sulusaane nag mooy ku fi bàyyi ñaari mbokk jigéen yu mbokk ndey ak bàyyi bàyyi fi tamit benn mbokk mu góor moo xam ne bàyyi ak leen mbokk ñaari mbokk yi su la seen la ñu doon hmm. kon su ko defee masala bi ñett lay wéree hmm. ñoom dañ leen di jox ñaari cër yëpp benn hmm. cër bu des seen mbokk mii ñu bokkan bàyyi moo koy jël kon su bàyyi woon lu mat tabaarakallaahu ñetti téeméeri dalasi mbokk mi jigéen ñi ñoo moom ñaari téeméer bi benn téeméer bu des mbokk mu góor mii moom loolu mooy cëram kon loolu mooy tabarakallahu farq bayna sulus ak sulusayn kon juróom benn cër yooyu mooy yi nga xam ne moom la alquran yaxal ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala dafa ñu tawfiq a taysir in uridu ila lislah mastataatu ma tawfiq ila billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu kon ñu sant Cheikh Moussa Sy mi nga xam ne moo dafa ñëwoon fii daf li nga xam ne mooy programme bi lu mu fi yaxoy wax yëpp nekk lu alquran ak sunna tew ko ci bànneexu bakkan fasihun balixun laysa yantiqu anil hawa بل الوحي والتنزيل وحي السماء كنسيغ مدى إلى نيم وعبا شكرا السلام عليكم